yàlla nga ko fekkee at yu bëree baree bëri at mu ñëw dàq morom bi si barke sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa si jàmmuwaay yàlla bu dara diis na lépp liis si barke sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa te ba si gii di ñëw yàlla na yàlla ñu fekk waat ko buñ ko fekkee itam yàlla nañ ko tal si barke sangu sangi yi غير نمو البرايا صبيح الوجه ذو قلق بيون لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم mbokk Tabaski gi yal na la fekk ci jàmm mbokk Tabaski gi di ñëw yàlla nga ko féete yàgg sa njaboot yëpp yàlla bu kenn manqué yàlla boo manqué la dara tamit yàlla mi dootee xéwal yal na la yàlla xéwale moo tax ma jóge foofu sama loxo ni la jox naa la sama loxo xol de ni la baal ma xàq baal ma xàq baal naa la yal na nu yàlla boole baal si barke yonent bi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ma zalika alallahi bi aziz wa salaamu alaykum